bismillaahi fii niin ak daala yàllaaw sawi bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sariika law wasi wa ma lil waad li fiika yàllaaw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 سريا jumaa ji nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom la liggéeyaat fii ci Porokhane te liggéey bi àgg ba lépp loo xam ne moo war a dem ci jumaa ji ñu def ko mu war ko ubbi nag aljuma dëppook le 21 août 2020 Serigne Mountakha ñëw na ci jumaa ji ngir visiter ko xool liggéey bi nga xam ne moom la dénkoon boroomi xam-xam ànd kook ñoom ak mboolem taalibe yi ngir ñu wan ko lépp loo xam ne def nañ ko ci. sëriñ bi bi muy ñëw ànd naag njabootug Serigne Bassirou gi muy Serigne Fallou moom Serigne Bassirou Serigne Issakha Mbacké moom Serigne basiiru ak sëriñ Moussa Nawel ak Serigne bas poroxaan bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi. ak sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Galas moom alxaaji Baara Mbàkke Falilu noonu la àndeek kilifa yu bari yoo xamante ni bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi ñu leeral ko lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi décoration yi ak lépp loo xam ne def nañ ko ci biir ak ci biti jumaa ji lenn lu ci nekk kilifa yi jël seen temps leeral ko sëriñ bi bu baax a baax نفسي سلمت liggéey bu am solo bi nga xam ne nag sëriñ bi moom la dénkoon boroom xam-xam yi te ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib moom bég na ci lool fësal ci ak cantam jëme ci mboolem ñi nga xamante ni ñoo doon taxawul liggéey bu ni mel moo xam décoration yi la moquette yi bunt yi lépp loo xam ne rek def nañ ko ci leeral nañ ko sëriñ bi mu nekk lool fësal na ci ak mbégteem kon mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen teew lu visite bu am solo bi nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru moom la amal fii ci jumaay Poroxaan ji laata ñu koy inauguré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 ويا في كبر بلا كلاف يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسري والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سن وخن لي الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله خلقت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا رب يا الله خلقت لي كل سم بالغد أتيت به لزاد بسكريا يا خضار يا الله خلقت لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبح يا الله لغوت أزمان اللج يا من له أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسراء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بذاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بذاك يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مباسطتي دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقف للملك يا الله رضا وذو دارين مرتبته بلا انقبال بفضل منك يا الله رواك يا ذو دارين مرتبته بلا انقبال بفضل منك يا الله رواك يا رافي الدارين مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا سبت عيسة خلا ميسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلا لي ستي الإنس والجنوة seytaanu yàllaaw anta samiu lazi naajitu samanan wa bil masaratili qad jutta yàllaaw anta albasiru lazi li xaada jumlatama lixtarta dunya wa uxra minka yàllaaw أكمت يا أكم باخي بكون يا سعد فوزي بما قاب من بسراك يا الله علاك يا عدل داعي بخير قاد ولا لغيري ولي قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت تلي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير الذي آية خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت العليم الذي صحصحت جملة ما لن ترلا أمدي لخير دهر يا الله أذا في بلاسي بعل نزامته لخوت فلن أزي من منك يا الله أظهر لاسي لقد مغفرة مات كيو برادي tu anka ya allah arja sarkar lasi kulli لبيك ريدا ولي سكر تجمي أسه يا الله